soxna su Mbàkke mu Cheikh Amadou Moutala moo teewal soxna Baali bismillah cant gi itam ginnaaw bu nu sante sunu sang sunu soppe sunu xarit sunu baay waaye di sëñ Tuubaa seex Mountakha Bassirou nga xam ne bis bii tey bu amuloon xat-xat yeeg yëf-yëf yi ak cantar ci ñun ndax day bisi promotion ndax mooy sunu jëriñ ñun naka jekk moo nu tettee ba nu egsi fii peccum liir bu neexee nday jàttee ca ca mbakke sëñ Muntaxa nu boot moo nu teete ba indi nu fii ànd ak mag ngi sosoon kuréel gi muy sëñ sëñ Baaba Gay di sëñ Nasiru Ture ba egsi ci sunu sang bi di Baye Alioune Badara Cissé ñu di ko wax Cissé Murit ñoo dem ba xandeer dem ca waaroo ak mag ak mag dab leen itam ak ak manat yi dab leen ba nu eggee foofu li ñuy sant sëñ Muntaxa ñaareel bi cant gi mooy ba nu demee ba nga xam ne liir bii dafa màgg dafa lamb ci biir ci biir biirub Sëriñ Tuubaa roccil nu fi jàmbaar joo xam ne ba nu ko indilee muy sëñ Matar Diouf mi topp sama ginnaaw nga xam ne ba mu nu ko yebalee mu egsi fii tam bu ñëwoon dëgg ci dëgg ci sunuy tànk dinu puus ak ba wax dañu naa cel ndax ay taalibe leen te ay taalibe rek lañu bëgg ne ñàkk du fayda nag waaye taalibe lañu waaye ba mu egsee bay fii puus na ba muy dugg dafa dugg dugg nit ba mu ñëwee jëf na jëf ji itam xanaa du ma leen ko wax damay wax ni ko xool gis ko làmb daj yaatal na it ndax yaatal na indi na fi ku ne loolu moom mëne su ko ñàkk a wax xam naa bu ñu paree bu discuter ba pare ma dugal leen ci jigéen ñi waaye ñoo ngi wax sëñ Muntaxa daal ni ko liir bi daa màgg tànk yi doon gudd di waaye ba mu nu fa bëntee ak sëñ Matar